mooy képp koo xam na nag dóor nga ñu maanaam dañuy fayu Ousmane Sonko woo na askanu Sénégal na képp ku leen dóor fayu leen ndax Macky Sall lii nga xam ne moom la nekke manaam tegu ko fenn moom jiitul Pastef nee na nag jamono ji ñëpp ñoo war a lancer Sénégal tampi Sénégal tampi nee na sax école bi dafa tampi hôpitaux yi tampi diaspora bi tampi Sénégalais yëpp a tampi moo tax moom jiitul Pastef nee na Sénégal tampi ñëpp ñoo ko war a jëla nee na tamit malaise moo am ci biir gendarmerie ak police ba tax démb sax Sonko andi général Tine mi nga xam ne moo nekkoon au commandant de la gendarmerie dafa démissionné wala lan moo xew loolee ab laaj la boo xam ne Ousmane Sonko nee na ñi nga xam ne ñooy journalistes yi waroon nañu see gëstu yéen a kaay gii di Les Échos nee na ki nga xam ne mooy général Tine maanaam démissionné wu la waaye dañu ko dàq dañu ko dàq te bi ñu ko dàqee bis bi ñu ko dàqee lañ ko wax ne ko joxe lenge yi passation de service sa ko fa ba tey ci biir journal bi moom Ousmane Sonko nee na li nga xam ne mooy ab tournée nemmeeku te képp koo xam ne bëgg nga leen jàkkaarloo ak yow yéen kaay gi di Vox Populi nee na Ousmane Sonko ma li nga xam ne maanaam mooy ab riposte ndax nee na Macky dafa bëgg a nekk président à vie te loolee mënuñu ko ko may yéen kaay gi de la Soleil ñu fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall ci tournée économique bi nga xam ne moom lay def ci diwaanu Matam nee na xolam sedd na ci li nga xam ne moom la gis Matam ak Promoville ni nga xam ne moom la soppee Matam moom njiitu mi di président Macky ma ngi dragué ñi nga xam ne ñooy askan wi yeewoo Matam yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na en tout cas li image bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci nervi yi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall ci tournée économique bi bëri na ñoo xam ne dañu ko ñaawloo ñi nga xam ne ñooy société civile bi ñoom nag daan nañuy alerter ba pare di sàkku ci Macky Sall mu daal di dakkal nervi yi nga xam ne ñoom la àndal ñuy dóor askan wi ñi nga xam ne nag ñooy waa ONG Jamra ñoom ma Makhtar Gueye milice politique yi nga xamante ni ñooy ànd ak way politique yi di def ay ñaawteef ak violence loolee dafay sàkku ñu daal di ko fii jëlee yéen a kaay gi di xibaar naan ñu violence yi nga xam ne moom la ñuy tekk ci kaw jàngalekat yi moo tax mbootaay gii di G7 ñoom nag fas yéene nañoo dem ab grève maanaam ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin yéenekaay gi di L'Info ñu xëy fekk fa député Mariam Soda Ndiaye muy interpellé état bu ci ñi nga xam ne ñoo impacté ci port bu Bargny Sendou ak ñi nga xam ne ñoo impacté maanaam ñi loru ci train express régional yéenekaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu bilan bu doy moo am ci ñi nga xam ne ñoo faatu ci géej gi ndax décembre 2020 ba juin 2021 lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett maanaam loru nañ ci géej gi am ci lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñetti yoo xam ne nakaaru la ak Saint-Louis yéenekaay gi di Stades xëy xibaar ñu ci coupe d'Europe beeg programme beeg match yi nga xam ne tey ji mooy am journal bi ne na match bu rëy dina dox diggante Portugal bu Cristiano Ronaldo ak ñi nga xam ne ñooy waa Allemagne journal bi nee na match boobee nag du yomb ndax Allemagne mattam bii nga xam ne moom la génn France moo ko dóoroon yéenekaay gi di Stades nee na Hongrie moom tey ji dina laale ak France match boobee tamit du yomb ci France ndax Hongrie matcham bi nga xam ne moom la génn ñetti bal ci dara ñu ko dóoroon